bu nekk dal leen ak jàmm. responsable dafa war a dafa war a wàcc ci yow maanaam nga xam ne yow affaire bi mën na laa dal mënees na laa wàll comme mën ngaa wàlle d'autant plus que dañu am benn virus boo xam ne bii dafa am particularité mooy virus la boo xam ne bii dafay def mutation da ay mutation waaw dafay. day soppeeku donc ku virus bu mel noonu nag euh, responsabilité xeex ko du nekk responsabilité état rek. moo tax xëy na ci stratégie état bi li ñu li ñu waroon a teel a def te defuñu ko mooy def combat bi muy un combat communautaire maanaam fexe ba nit ñi yëg ne responsabilité bi def ci ñoom la nekk d'abord avant mu nekk ci mu ne mu nekk ci état bi loolu tey état bi mu ngi ci prendre conscience mais xaw naa xaw tardé xaw naa taw daal bu la koy woon mooy bari na sénégale yoo xam ne fii mu nekk nii fi ñu toll nii ñoom jàpp nañu virus bi sax amul ah am am ñu ko jàpp. Euh, mauvaise communication la wala ñoom ñoo. waaw naa ne nag communication bi moo doyul doyul c'est-à-dire que waroon na ñu waroon ñu def communication boo xam ne bi nit ñi def dañuy am yaqin ne virus bi mi ngi fi te virus bi mën naa dal ku ne. te am na am na bàyyeeku boo xam ne boo ko bàyyeekoo non seulement mën naa la demee mën nga ko wàlle parce que mën nga yore virus bi doo ko yëg loolu la ñuy a moom porteur asymptomatique nga parce que fii nit ñi maa ngi koy wax dem su ma xaar nit ñi bala ñuy ne feebar am na mooy ñu tëdd tant que tëdduñu euh, maanaam loof ah ba lañ mënul mënatuñ ko pour duñ jàpp ne dañuy feebar alors bu fekkee ne virus bi nekk nag yow asymptomatique si yow da nga jàpp ne feebaroo donc loolu waroon nañ cee yee nit ñi très très tôt communauté yi euh, état bi am ay relais communautaire même sëriñ si waroon nañ nekk ci combat bi nekk euh, ay relais communautaire ñu ñu convaincre leen ne virus bi am na ñu convaincre seen i nit ne virus bi am na euh, maire yi maire yi député yi jàngalekat yi syndicats yi ñooñu ñëpp waa ñëpp waroon nañu nekk des relais pour que nit ñu mën a maintenir pression bi mais fi ñu toll nii boo ko xoolee avec avec déconfinement bi da xool ne eh, nit ki bàyyeeku nañu man damay faral léeg-léeg di doxantu ci plage bi ndax sama sama tànk mais boo demee plage bi tey dafa fees dell nit ñi seen yoon nekkatu mel na ne feebar bi nekkatu fi te te te te statistiques yi wane na ñu ngi yokku donc loolu la mën a wax ci mesures yi waaye man du ma def comme ñi nga xam ne dañuy attaqué état bi moo def nangam nangam cest dire que dafa am ñoo xam ne ñi dañu nekkoon ak confinement politique confinement bi dafa am confinement politique maanaam politiciens yi mënatuñu te xam nga nit moom ñu ñu politicien suñ politiciens yi fii boo nekkee opposition boo boo boo gaañoo gouvernement rek pour pour amu exister tuloo voilà donc ñu nag léegi ñoom ñooy wëlbati ko tey di dal ci gouvernement bi alors que man awuma sikk ne bu ñu nekkoon ci place gouvernement bi peut-être ñu def sax erreur yu gën a garaaw